yi fi teew yëg may leen ma balaa may tàmbali ma sant sunu boroom bi nga xam ni moo ñu may jataay bi mën a am jataay bi nga xam ni li ko tax a jóg mooy respecter kàddu gi nga xam ni joxoon naa ko askan wi ginnaaw le 29 novembre bi nga xamee ni am na ay décision yu jóge ci parti bi nga xam ni tey assemblée bi ma jëlee parole wax fa kàddu yooyu daf leen neexul mais balaa ma ciy xuus ngeen may ma ma gërëm kilifa diine ak kilifa aade yépp yi nga xam ni ñëw nañu fii di leen gërëm di leen sant di yóbbante nuyoo yeesal taalibe ak siyaar ci ñi leen yabal di gërëm di sant kilifa yi opposition ak société civile bi nga xam ni ñoo ngi fi lim naa leen léegi di dolli ci lim bi babakar Diop di dolli ci lim bi Cheikh Tidiane Dieye di lool ci lim bi Moustapha Kane bi ma duggee ci salle bi fekk leen fa ngeen toog li njëkk ñëw sama xel mooy lan laa def ba kilifa yi nga xam ni ku nekk xam na ni tey dimanche ni mu xate ak li leen war ñoom ñëpp ñu bàyyi seen yitte ñëw fekke jataay bi yàlla na leen yàlla fay ci seen taxawaay seen taxawaay fii sore na ci sama xol lool di profiter ci li nu sunu borom jagleel pour masawu ñi nga xam ni am nañu nattu ci mbas mi nga xam ni moo nekk ci biir réew di masawu di jaale njabootu ñi faatu ci yëngu-yëngu yi amoon ci semaine yi ñu génn yëngu-yëngu yi nga xam ni neexul kenn te mënoon na ñàkk tamit di dellu ci li nga xam ni moom laa wax léegi yàlla dafa def le 27 novembre assemblée nationale ministre de l'agriculture jaar fa bi mu ñëwee lenn rek nekk sama bopp mooy assemblée bii ma ñëw ñëwuma fa pour sama cëggalu bopp ñëwuma fa pour représenter parti dama fa ñëw pour représenter askan bi moo tax mënuma sukkandiku ci lëngoo bu bees ba fàtte askan boobu te duma wax luy seen jafe-jafe moo tax bi ministre bi ñëwee dajeeg jamono jooju immigration clandestine bi mbëkk mi tàmbaliwaat sonn loolu réew mi ma ni que boo demee ci président Macky nga ni que ne vision wam jóge jam ñaajo fekki vallée du fleuve Sénégal fekki vallée de l'Anambé ndaxte loolu dina mën a régler xëy mi mais tamit dina tax ñu am sunu souveraineté alimentaire maanaam li ñuy lekk ci biir réew bi ñu bàyyee ci biir réew kooku yaakaar naa ay tàccu laa ci waroon am mais biñ ci jëlee beneen dogal le 29 novembre wàcce ma ci sama poste vice-président ma gis àdduna bi yëpp mbir mi naqadi leen ma jot ay appel yu jóge fépp ci biir àdduna bi sénégalais yu nekk ci biir réew ak sénégalais yu nekk ci bitim réew ñu ni lii nga def moom la ñuy xaar ci député comme ni ko sa yeneen collègue yi di defee Abdou Mbacke ni koy ñoom maam Diarra di defee ni koy Aïssatou Sabari di defee Ousmane Sonko lii la ñuy xaar ci bépp député Cheikh Bamba Dièye Gilas mais ñu ni dañu ci wàcce mais may xamal sénégalais yooyu que wàcce boobu yëngaluma moo tax boobu déggu leen sax ma wax ci ndaxte kilifa dafa ni ma dafa doon màndarga ci kilifa ak lu situation ñëw nga àll ci ak dal moo tax yéen ci seen bopp presse bi ku nekk def na lu nekk pour ma wax mais kenn gisul ma yëkkati ci kàddu ndaxte yëngaluma d'ailleurs dama recevoir décision boobu ak fierté ndaxte sama taxawaay biir assemblée nationale dara waralu ko lu dul askan bi te askan bi danoo sonn bëgg ñu leen taxaw te xam loolu tamit moo tax bi ma nekkee député ba tey amul benn fifteen bu ma mosa laal ci li may jot ci assemblée nationale loolu lépp ci loxo Paco lay jaar dem ci askan bi bi ma nekkee député assemblée nationale ba fii may wax a yéen carte carburant bu ñuy jox deux cent cinquante litres la yeneen cent litres yi doon ay ticket carte carburant boobu amul benn litre bi nga xam ni utiliser naa ko ci yoonuma sax carte bi lépp ci askan bi lay def fan yii ñu génn am na kenn ku ma woo ni ma am na ay terrain de deux cent cinquante mètres carrés yu génn deni biram ndaw sa tura ngi ci danga nga ci bokk ma ni ko ba ko fa soxlawuma ko la ma tax a jóg mooy askan bi parce que damay liggéey depuis ñaar fukki ab nekk ci secteur privé bi kon mënuma tey di rëññee loolu mënuma di rëññee conviction politique yooyu taxaw rek jàkkaarloo ak jafe-jafe askan bi mooy yi ñu war te tey dafa yegg si acteurs politiques yi dirigeants politiques yi gëm seen bopp nekk ci yitte askan bi kon mbokk yi di leen xamal ni Sénégal sonn na et jot na ñu jóg àndandoo pour taxawu ko àndandoo taxawu ko mooy fexe ba li nga xam ni moom la ñu yàlla jagleel mu mën a jariñ askan wi boo dee xool am na lu feeñ ci tey suñu suuf muy ay ressources naturelles yu am solo mais bu ñu amul taxawaay bi war comme yeneen réew yi ci Afrique nga xam ni seen suufu suuf yàlla dafa def lu am solo te seen kaw suuf ñu continuer di ndóol boo moytul Sénégal ñooñu lay fekk loolu taxawaay lay laaj dafa jot ñu ñëpp ñu dajaloo jublu ci li nga xam ni mooy njàng mi te loolu mënuñu ko def te joxuñu cër gu wér jàngalekat yi nga xam ni yàlla dafa def ñoom ñooy wër ci àdduna jël xam-xam di ko dugal ci doomu aadama yi ñooñu dafa jot ñu jox leen seeni cër dafa jot ñu régler xëyu xale yi te loolu mënul am tant que moderniser wuñu sunu agriculture tant que tamit créé wuñu ay champion ci yenn domaine yi nga xam ni tey ñeneen ñoo ko téye te sénégalais yi matee ko sëkk war ko téye mooy lu mel ne alimentaire lu mel ne BTP télécommunication lu mel ne yeneen ak yeneen yi nga xam ni secteur yi indi xaalis la bu bari dafa jot ñu fexe ba biir réew mi ak lu feebar tar-tar ñu am ay plateau yi nga xam ni mën na ak accueillir ñi feebar ndaxte am nañu ay spécialiste yu yàlla may xam-xam yi nga xam ni war nañoo mën faj loolu mais plateau rek moo leen di manqué dafa jot loolu ñu am ko ci biir réew dafa jot ñu taxawal suñu justice mu doon justice bu dëgg tax a bi nga xam ni lépp lu mu rendre kenn du am luñ ciy wax te loolu nag mënul jaar yoon mukk tant que président de la république génnewul loxoom ci doxalinu justice tant que président de la république bàyyiwul di jéem na saxal opposition ak di jëm na saxal opposant yi loolu mënul am tant que delloowuñu waat ñii di Karim Meïssa Wade di Khalifa Sall seen àq ak seen yelleef loolu mënul am tant que arrêté wuñu poursuite yi contre Ousmane Sonko wala arrêté wuñu di jàpp nit ñi di leen dugal ci biir kaso yi donc dafa jot dafa jot ñu arrêté yooyu pour taxawal liggéey boobu gën ko jëmmal moo tax ak ñi àndal ci biir réew ak ci bitim réew macha allah muy sénégalais yu takku moo tax nu jóg taxawal parti bu ñu tuddee parti républicain pour le progrès PRP diisoo ak askan pour que ensemble ñu mën jublu ci prospérité ci jàmm te fan yii ñu jëm parti boobu fas yéene nañ ko taxawal ci cinquante 552 communes yi nekk Sénégal yëpp ak ci réew yi nekk biir diaspora yëpp bëgg nañu mois de décembre bii ñu jëm ñu taxawal congrès bu parti bi duma jeexal kàddu yi te gërëmuma ñi nga xam ni def nañu déplacement bi tamit mais nekk ci biti mën ñu yegsi ci biir salle bi ma leen di wax cofeel bi ma am ci yéen ndax loolu coono la mais gis nañu li leen jaral ñu ñaan sunu boroom ba duñu mos a tas seen yaakaar di gërëm la presse néew na nga dem saal fekk fa lu ñu toy ci taskatu xebaar di leen gërëm ndaxte bi ngeen ñëwee yàgg na te yéen ñëpp yéen a ngi toog kenn bougé wu loolu di participer ci luy dëgëral démocratie ci biir réew di gërëm di sant ñi nga xam ni ñoo def direct événement bi li mbir mi yéex tàmbali di leen sant wasalaam